ñun déménagé nañ un mois quinze jours avant lii di déborder kon ndox bi yàgg na fi kon bu ñu kenn sonal nag monsieur le maire ak monsieur na Macky Sall ñëw ut sot la situation jënd nañu fi jënd nañu maire toog terrasse di togg ci kaw terrasse amul fu ñu togg ay xale am deux ans un an ku leen wax ne ndox bi tey la fi ñëw day fen ku leen wax ndox bi tey la fi ñëw day fen ndox bi def na fii depuis 2012 à 2013 Macky Sall dafa déménager gars yi yóbbu leen à Tivaouane Peulh bàyyi fi ndox bi ils n'ont pas canalisé les rues ils n'ont pas canalisé les rues ils ont laissé là-bas les gens depuis 2012 2013 2014 jusqu'à aujourd'hui et il nous dit que c'est la pluie et il nous dit que c'est la pluie Madame, Monsieur le maire dit que c'est la pluie. C'est un danger. Prenez vos interviews. Allez-y là-bas. Ils sont en train de nous mentir. politicien yi ku nekk ñëw fi rek ak sa casquette rek di waxal sa bopp bëgg ñoo politiser loolu dafa jeex politique développement la ñu wax waxuñu politique politicien dañu sonn dañu taay dañu dee dañu dem waxi politicien dong lañ fi wax ah, Sonko ñëw na fi ministre l'intérieur ñëw na fi léegi nii ñu ngi nii ñi fi ñëw ay Karim Wade lañ ñu naan ñoo defa tali bi kon échec nañu ba ñuy defar tali bi waroon nañu sóoraale ay canal yuy jóge si koñ yi ñëw fii si tali bi nii di évacuer ndox mi kon ñoom échec nañ jarul woon ñuy ñëw dañoo bëgg ay canal soxla wu ñu ceeb soxla wu ñu dawlin soxla wu ñu matla am nañ ko ñu ngi lekk ñu ngi naan am nañu ay mbokk dégg nga dañu bëgg ñu dindi ndox mi parce que suñuy doom la ñuy nekkal ñun quatre heures du matin la ñuy xëy wàcc minuit te ay responsable lañu yore suñuy doom yore suñuy jàng doom ñu ngi sant yàlla li ñuy may wuñ ko nañu defaral canal la ñuy wax ñun bëgguñu lekk bëgguñu naan bëgguñu mat laa nañu defaral ay canal mais xoolal ñun li ñuy may soxlawuñ ko ceeb ak diwlin ceeb diwlin xam nga lan la ñu soxla ñu defaral ñu canal yi ñu def tuyaux yi dara baaxu xoolal sept jours suñuy kër ñu ngi màbb ñun dañu sonn actuellement nii depuis une semaine ñu ngi ci ndox mi ñun ñun nga xamante ne nii ñun ay civil lañu ñooy ñëw di di ndox mi ñu ñuy wax ay machine u 30 ak 20 suñu propre moyen la jël boobu léegi maa ngi tëj suñu place bàyyi ko foofu fii yëpp dara liggéeyul tuyau yaa ngi ni dara baaxu fi ay ceeb diwlin bëgguñu ko ñu dañoo bëgg ñu jox ñu leen waaw ah, ñu leen fi ku nekk dégg nañ fi ku Sonko ñëw na fi Macky Sall ñëw na fi ñun loolu amul importance nee na on a décrété dix milliards dix milliards yëpp nañ ko dugal ci ndox mi ñun soxla ñu matelas soxla ñu ceeb soxla ñun diwlin ñun dañoo bëgg maanaam ñu dem dox suñu occupation ay fan a ngi nii kenn lekkul kenn naanul ñu jël ñu ay gaal li ñu ci dugal xam loolu neexul ñun li ñu gënal ah mooy na ndox mi dem ñu mooy yëpp armée beeg yëpp nañ ñëpp ñëw dimbalinu ñun ñoo lañ soxla merci soxlawuñu politicien ndaxte erreur yi Ablaye Wade ñu ko jaayoon atténué ko Macky Sall ñëw fekk ko fi de bien vrai que ne état continuité la mais Ablaye Wade ñu jaayoon fii parce que ñoo ngi nii tey jii ñun ñëpp abandonné suñuy kër politiciens yi fii ñëw fii du moment politique bu ñuy politique fii bu politique jotee sax ah ah ah. ku fi dugg ñu fii dañu la jox sa toroxal duñ ñu xooj fii duñu avertir buñ ñu buñ